di jaayee fii ci marché Darou yor place ci maal bi doon fi jaayee mbooleem ñun ñi jaay ci marché Darou ñun ñëpp ñoo tënku ci benn mbooloo di jël témoin ci population bi ñu diglu ñëpp mu sénégalais yi ci ni sunu maal bii ñun ay mbir lanu démb doon ko tey doon fas ko yéene doon bu subaa incha allah moo tax bi nga sëñ sëñ Mountakha bi mu ñu tànnalee Abdoulaye Khadre Kam yi mu doon suñu maire lépp lu jaaxal dañ ko koy wax maal bi ñetti at ci gannaaw yëglu woon na ni de wane dey daanu wax nañ ko maire yi maire yi waxu ci dara ba ñu xëy maal bi daanu yàq fi alal ju bari lool donte faatu si benn bakkan nañu sant yàlla bu baax a baax waaye yàq na fi alal ju lool bi lool amee ci sens lañ woo maire wax ko woo police wax leen ko wax ko sous préfet wax ko préfet sous préfet woote ab daje ci sensé ñu teew ñun ñëpp ñu jël fa ay dige police wax ni dana sécuriser mal bi ba li ci bu fee ñu koy daale kenn du fi dugaat ba muy daan sa kaw ba ca topp Senelec wax ni moom dina éliminer courant bi ba du fi def benn jéyee maire jël ci turam jël kàddoom wax ni dinaa tonni garawaay bi ci ñetti fan gannaaw bu may eggale mal ba noppi danaa tonni li fi nekk ci garawaay yëpp ci ñetti fan tàmbali tawax bi balaa mat une semaine ñetti digg yooyu yëpp nag police la ma def na ko Senelec la ma def na ko waaye maire la waxoon def ci dara booy ba léegi nag ñu ngi koy topp su waxee li boo bu ëllëgee mu wax leneen lu bokk da li mu waxoon parce que léegi ñun ñuy gëm la ay procédure ñun xam nañ ni maire yi ni muy doxee xam nañ ko léegi nag ñun dañoo sonn ay doomu aadama lañu mun noo yalwaan mun noo sàcc liggéey képp lañ ban doomu aadama faaw mu lekk du lekkum ñax loolu waral mboolem ñu nekkoon ci maal bi ñëpp nekk téeméeri ak fukk ak ñeent ñoom ñëpp yëg nañ ko ak ñi wër maal bi moom it mat na 50 places yoo xam ne ñi wër maal bi ñoom ñëpp kenn mënatul liggéey ak ñi nga xam ne ñoo xàllaloo ni bil bi dafa yaar ngi tolli xeer bi ñoom léegi nag faw rek ñun ñu yëglu ndax lii métti na léegi nag def nañ signé nañ ay pétition ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk nangam signé nañ ko ci ay pétition jox nañ ko maire jox nañ ko sous préfet jox nañ ko préfet léegi nag fekk la vingt bii ñu jëm nii bu fekkee saafara wuñ ko ñun dañ jël suñu saafaraay bopp ñu nag li ñu mën mooy tourné garaaweel bi su euh, délégué ci mbedd bi lay jaaye ñu dem jal ko buntu place am ak feneen fu ñu ko mën a jël donte dañ koy jël foofu li ñu jël ñu jël loolu la ñuy def loolu nag xam nañ nii nit nit moom faaw day lekk dañoo sës ku sës nag faaw nga wut lay solution da ko def muy solution lii mooy suñu solution ñoo ngi koy loo nag population bépp ñu ngi wax nañ ko ko yi ma doon wax yëpp moom moo ko doon def moo ak ñi mu ko àndal mais effort yi daa jëriñu dara léegi nag ñun bu ñu teg ay ay ay ay mesures ci délégué lañu tàmbalee jam jam teg ci kaw maire moo tax buntu place am dañ koy jël ak mbedd yi talibé fépp fu ñu mën a jël dañu fa jël délégué moom li waroon def wax kilifaam muy maire maire moo war a ñëw defar ci dara léegi nag ñun sës nañu fi lii lañ mën def li ñu war diggante ngi koy def bien sûr parce que Touba la fi nekk ci bari na lool ni marché yooyu def ñun ñoo ngi koy def marché yi place a ñun koy fay léegi nag mal bi mal moom ci mi ne ci Touba xam nañ ko mal yi bare bari ci Touba maire da daan jégal fay ku leen léegi nag du tee ñun ñoo ngi doon def li ñu war léegi nag suñu devoir dañ koy laaj laaj nañ ko ci njëkk ak sutura ci suuf di ko laaj boobee ba léegi un mois la ko maal bi fi nekk nii comme ni ma ko waxee woon rek démb te lu ma téeméeri jigéen ak ñeen fukk ñoo fi doon nekk di daan seen doole léegi nag maal bi bim mu daanoo ba léegi tumuranke nañ fu ñu nekk lool boobu ba léegi ñoo ngi nekk si naaj bi fi la ñuy nekk di liggéey njaay min yore nag bëggul naaj chaque jour ci ay bunti place jàmb la ñuy nekk di bokkatoog leen lu nekk tumuranke nañ ci torop nag boobu ba léegi nag mbir mi yàgg na torop wax dëgg yàlla kenn te kenn jéemu si leen léegi nag ñun ñoo ngi ñaan képp koo xamante ni rek man nga ñu cee jàppale te yàlla tax rek nga dimbale ñu ci ndax ñun wax dëgg yàlla soon nañ trop waaw te ay jigéen rek lañ dañuy daan suñ doole rek ngir jàppale suñ bopp ak jàppale waale suñuy njaboot. lim ñu jural moom bëri na ndax bagage bu ñu yor wax dëgg yàlla day yàqu bagage bu ñu yoree bagaas bu ñu yoree day yàqu ndax naaj bi moo koy yàq loolu moo tax bagage boo jënd genn wàll gi yëpp day yàqu waaw. da ngeen amatuñ fu ngeen denc bagage bi. amatuñ fu ñu denc bagage bi ndax maal bi bi ñu doon jaay bi moom moo ci tane woon ndax seddoon na wante fi nekk ni naaj bi mu nekk moo tax luñ ci bagage boo jël genn waal gi day yàqu. bi muy daanu yàqule ngeen ci ay bagage wala. bi nañ ci ay bagage wa taxu koo bari lool na wante am na luñ ci yàqule moom. bon bi jéey ji amee ànd na fi ak délégation ñëw fi woo ñu ñu waxtaan ak moom mu ne ñu ñaari place yi dañoo nekk ci kaw mbedd mi fele ñu toj ko pour bill bi mën a dugg place bi man maa ko moom bi ñu waxtaanee ma nangul ko ko. ne ko comme yow place bi moom mooy tere bill bi dugg pour doon ne gravaillette bi kooku mën naa leen koo may ci jëmmi sëñ Touba bi ñu ma ko waxee beneen ba ca tegee mooy ñu waat ma réunion euh, comment dirais commune bi ñu demee ma toog ak moom mu ne ma place bi dinañ ko toj pour bill bi mën a dugg suñ ko tojee dans trois jours bill bi bill bi toj place bi moo fi fanaan pour tonne gravaillette bi dans trois jours ñi tonne gravaire bi bu trois jours yi passé danaa ànd ak maçon bi mu ñëw tabaxal leen place yi booba léegi ñu ngi toog di xaar Pape sar mu naan ñu tey suba tey suba ba ca tege mooy suñuy bagage yàqu na mal bi cent vingt personnes ñoo fi doon liggéey li ko wër plus na cent place li ko wër ci ay place kenn liggéeyatul marché bi yàqu na mbedd mi kenn mënatut a jàll koo yor am njaay ci kaw mbedd mi nga koy jaayee kaw tali bi nit ñaa ngi fi ba fees dell te loolu mën na jur jéeya parce que oto mën na saaraan sax rey fi lu kenn xamul lu mu toll kon waa mairie nañ ci jël seen responsabilité ni ñi sonn nañ waa Daaru Marnaan sonn nañ liggéey dans un mois ñu ngi toog wax nañ du guddi du bëccëg fu nekk wax nañ fa lii nag moom moo ñu dese woon suñu diggante ak maire lim ñu dige woon dara defu ko ci chaque jour ñoo ngi wax chaque jour ñoo ngi wax doomu aadama yi sonn nañ fii ay borom kër a fi nekk ay maire yoo xamante ni dañuy ñëw lijjanti ngir yóbbu seeni kër ngir teral seen i njaboot kenn liggéeyatul ñëpp a ngi toog te li ñu ko teg mooy mairie bu Touba. Pape Sarr moo ñu teg lii Pape Sarr sonal nañu nañu wax ñu lan lan moo nekk suñu diggante ak mairie mu wax ñu ko ñoo ngi fay suñuy droit ñoo ngi def li ñu wax suñu diggante ak mairie kon lii mu ñu waxoon nañu ko def suba ba ngoon jot ñoo ngi ci mënatuñoo liggéeyu ndax maal bi lam ñu waxoon defuñ ci dara garabaayir bi nañ ko tonni suñ ko tonni wun nag def nañ bërki démb pétition boo xaman ne am nañ quatre cent et quelques personnes quatre cent et quelques yooyu li ñu ko may fii ba la vingt déposé naa euh, préfet déposé naa kayit bi ci des mairie këyit yaa ngi fii tegee sama place le 20 laa leen a suñ suñ ñëwul tonne gravaillette bi gravaillette bi ñun waa marché bi yëpp danañ ko tonni te suñ ko tonnee dañ koy sotti place délégué wala ñu sotti ko ci kaw tamit sama place dañ ko daaneel après danañ ko defaraat dans trois jours Pape Sarr li ma wax mooy maximum une semaine dinaa tabax place bi dégg nga kon nag lañ ñu waxoon defuñu ko ñaari place yaa ngi ni boobu léegi liggéeyu ñoo ngi ni toog suñu xëyee dañuy toog naaj yàq na bagage yi sonal nañu dañoo baas a baas a baas ba mënatuñoo baas dégg nga dige bi nag moo doy ñëwaatuwuñu man maa jël sama téléphone woo sëñ mi jiite marché yi ma ne ko sëñ xaadim Mbàkke mu ne ma waaw ma ne ko liñ ñu waxoon ci marché booba léegi ñu ngi toog di la xaar ñëwoo mu ne ma naa ko muñal dans trois jours dana ci àddu ñi wootee ma woo Pape Sarr jotuma ko ma bàyyi li may def dem ba bureau bi ma demee xam nga la ma Pape Sarr wax waruñu la woon sax parce que délégué marché bi lañ gën a soxla ma ne ko Pape Sarr pour lan doo mën a recevoir yow bi nga ma soxlaa da nga ma may la toj sama place pour biir bi jàll la nga ne doo ma recevoir da nga may recevoir force wala ci def ma recevoir ne ma effectivement da toogal fekkee réunion bi parce que ñoom ma dikke ñoo ngi nii ci maal bi lañ doon wax mais lañ ca doon wax yëpp daara amu ci daara daara ñoo dañoo toog a toog ba sonn. kon waxuñu ne lan moo tardé liggéey bi. waxuñu lan lañ wax ne moo tardé liggéey bi mooy maire génne na këyit bi nga xam ne da koy jox ñuy liggéey nee nañ kayit bi dafa am erreur pour ñu delloowaat ko pour defar ko dégg nga dem naa ba egg ak Pape ne ko yéen su dee da ngeen a joxe liggéey bi nga xam ne borom camion yi ngeen ko jox jox ma numéro man ma woo ko lan moo téye liggéey bi mais nangu ñu ci leeralal dara ba léegi ñoo ngi toog di xaar léegi nag dinañ ko may fii ba la 20 mu xalaat mais fii ba la 20 moom xeer yi day jógee ci Daaru Marnaan fii moom ak nu mu mënta jógee fii la